li ci yéen kaay yi dañ ci ànd ak Barthélémy Ngom dal leen jàmm Ila Touba ñépp ci dëkk bu sell ba ngir màggal gi ci atum ren ji yéeni kaay desuñu gannaaw Sud Quotidien ne Touba fees na xaat ak nit te dara xewagul màggal googu leen ñu jagleel Serigne Touba Xaadimu Rasuul ki ëllëg ci alxames gi yemook fukki fan ak juróom-ñaar lañu koy amal mu yemu nag ak fukk ak juróom-ñetteelu fan weeru safar waaye nag bu mooy mbirum ñaan yeeg li diine gi santaane yéeni kaay bi di Sud Quotidien nee na taalibey murit yi am na feem wu wees bu ñuy woowee mbégte mi lu jëm ci wàllub hébergement bi maanaam wàllum dalloo gi ak wàllum njëkk bi am na place bu am solo ci célébration màggal gile lépp nag yéenekaay bi ne ñu boole ko ak i berndeel enquête ne ñun ñëpp ca Touba maanaam Ila Touba Vox Populi ne Touba la fa nekk gum ci nit jéggi na dayo l'observateur ci cahier spécial màggal gi mu génnee ni tey jii rafetlu liggéeyu Bamba daal di nag dellu siwaat ci histoire bu am solo bu Serigne Touba Xaadimu Rasool li ko dalee ci page 3 wam ba ci page 10 lépp la l'observateur wax ci Bamba dem na sax ba dem ci dëkk bi nga xamante ni fa la Serigne Mountakha Mbacké ganesee àdduna Daaru Salaam wuyoo di dëkk bu nekk ci département bu Mbàkke waaye dëkk ba daanaka manqué na lu bari bu ñu sukkandikoo ci yéenikaay bi di l'observateur jeexul de ndax l'observateur dugg na ci quartier général bu Hizbut Tarqiyyah yi nga xamante ni yaatuwaay wa toll na ci sept ectare dëkk la bu nga xamante ni daanaka méngoo ak jamono ndax l'observateur nee na lépp luy commodité rek ma nga fa laas yéenikaay daal di siiwal turi kilifa diine yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a ràññeeku ca Touba bokk na ci Serigne Mountakha Mbacké bi ñu ne bokk na ci li ko gën a ñor mu di dajale nit ñi fexe ñu benn ba maanaam ku bëgg waxtaan la sëriñ Abdou Karim Mbàkke Makarimal Axla yéenekaay bi daal di siiwal liggéey bi mu def jagleel ko ndaw ñi ak kii di sëriñ Moussa Mbàkke naawel yéenekaay bi ne mooy homme de confiance su xalifu Touba bi ba ci sëriñ Bass Abdou Khadre mi yore kàdduk Touba lu ëpp fukki at a ngi nii moom moo yore kàdduk cité religieuse boobu le di Touba am na ñetti xalif yi fu jot jaar ku ci nekk ànd ak moom la yéenekaay bi di laas xamle source a ci wàllam daal di jaaraat ci yoonu Touba ak bañ gi mu bañoon fitna ak nooteel bi ko tubaab bi bëggoon a teg miracle bi mu njëkk a def moom yóbboo ca Gabon ci atum 1895 ba ñu demee dañu ko transféré yóbbu ko ci base bu armée coloniale bi jébbal ko nag fukk ak ñaari soldaar yoo nga xamante ne dañoo ngannaayu ba fees waaye naka lañ ko joxoñ rek commencé daanu di dee kenn par kenn te kenn xamul lan moo leen di rey ñaareelu miracle bi mu di buñ ko jëlee daal ko yeew ci garab bu mango garab ga jékki-jékki daanu ay at tegu ca rek teen bu am ndox mu sell feeñee ca fa garab ba newoon noonu tubaab bi jël bamba daal di ko yóbbu ca mayumba Touba def na ko suñu naataango yi source a xëy di ñu ko xamal loolaa tax sax yéenekaay bii di Soleil bind ne Bamba la lumière toujours vive maanaam leeraayu Bamba ba tey ba sànq ba ëllëg mu ngi fi ak ñun ci yoon yi ci Touba moom Vox Populi daal di recensé lu toll ci téeméer ak ñetti accident ak juróomi nit ci ci ñàkk seen bakkan am na juróom-ñaari téeméeri doomu adama yoo xamante ni teg nañu leen loxo ñaari kilogrammu yamba nangu nañ ko ci dispositif bi nga xamante ni wéy kaaraange gi taxawal nañu ko lu ëpp junniy gendarme la ñu déployé junniy sapeur pompier ak ñaari junni ak maanaam ay policier beneen sujet bu gën a ci actualité yu àllarba gi di plainte bi nga xamante ni Mamour Diallo teg na ko ci table procureur de la république jëmee ci kaw Ousmane Sonko ci mbirum 94 milliards yi plainte bi démb la ñu ko yóbbu Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Vox Populi lu ñu koy toppee mu dip wàllub diffamation maanaam sosal nit yàq deram waxal ko lu amut enquête ne plainte ya daal bari na lool ndaxte bu mooyee Mamour Diallo mouvement frappe France dégage ak ki di maître Ousmane Sey 2014 milliards yi maître El Hadj Diouf avocat wu Mamour Diallo mi déposé plaintam bi ni ki démb nee waa Libération Ousmane Sonko bu yee boo xam ne daañ ko summi ba mu set wecc waaye nag Sud Quotidien nee na maître El Hadj Diouf daanaka bësam bi démb ca tribunal bu Dakar du ko gaaw fàtte naka la ne cëpp foofu rek yuuxoo ya jolli waa FRAPP France Dégage ñoo ko doon yuuxoo bundu xataal ko avocat bi nag di maître El Hadj ci biir yéenekaay bi di Les la mu wax leer na nee na Ousmane Sonko bu yee moo xam ne daañu ko sonnal daañu ko massacrer daañu ko summi ba pare nag daal di ko punir yéenekaay bi sax ne Ousmane Sonko bu dee lu ñu koy toppee am na bu ye xam ne dana def kaso gën gaa néew ñetti weer gën gaa bari ñaari at ba noppi nag ñu amande ko diggante cent mille jàpp benn million ci sunu koppar Ousmane Sonko di député ci assemblée nationale assemblée nationale googule am na bureau bu bees Abdou Mbow bokkatu ca yéeni kaay bi di quotidien xibaar ne Cheikh Tidiane Gadio moo ko remplacé ci poste troisième vice président Abdoulaye Baldé nag ñu jox ko commission énergie lii ya tax ba yéeni kaay bi di quotidien ne Macky Sall day na bu baax ñi nga xamante ni ñoo di ay alliés jàpp ne récompensé na leen ak ay sucette ba noppi nag ne du rek Abdou Mbow ndaxte Awa Gueye bokkatul ci bureau bu assemblée nationale ñoom ñaar ñëpp dañ leen dégradé ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Les Échos ñu wax ci mbirum Karim Wade ak yéenekaay bi di L'Observateur bi ñuy xibaar ne nguur gi noppi na ngir réparer préjudice bi nga xamante ni subirloo na ko kii di doomu Abdoulaye Wade gile firnde gi L'Observateur ne ci kanamu comité des nations unies buy saytu àq ak doomu aadama yi fële ca Genève nguuruk Sénégal dafa jël ay engagement ne dina réhabiliter kii di Karim Wade loolaa tax sax sama naataango ne diggante nguuruk Sénégal ak njabootu Abdoulaye Wade bi day daanaka coppeeku am na ci tension bi doxoon seen diggante ci atum 2012 ba nëgë ni fay na tey jiitu tuuma yeeg bundu xataali la ñu tege ci wet gi fas yéene nag jubbo yendoog jàmm